genn golo gudd na waaye loo ca laal borom daf koy yëg drapeau bi vert jaune rouge la étoile bi ci digg bi bu ko doomi Sénégal représenté dignement Europe Amérique Asie fu mu mën a doon ba ci Afrique soo jant dafa war a doon suñu fierté ñun sénégalais yi ñun sénégalais yi nag ñoo bëgg kiy wax du animateur kuy wax du artiste kuy wax du communicateur kuy wax du waykat kuy wax du fecckat kuy wax du kuy wax du politicien kuy wax du kenn kii wax mooy ki daan d'identité Sénégal nekk ca muy un un citoyen sénégalais ñu ngi rendre hommage ñu ngi yeesal sunu cofeel ñu ngi yeesal sunu sunu kóolute ak sunu sunu sunu sunu mbëggeel jëme ci raaya wi nga xam ne tey sunu bàyyi ju baax ji nga xam ne mooy Papa Diouf le leader de la génération consciente indil nañu ko ñun waa Sénégal Papa Diouf mbokk mi yaay Maxtaar Diop suba teel maa ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral say cër festival woo xam ne der wu ñuul nekku ca nga dem représenté fa génn guñ ca boo représenté Afrique Pape Diouf nga sant Sénégal a pire nga doomi réew mi nga ñun nga sagal ñun nga si siggil ñun nga suturaal waaye ñun it nga teral ci li la yàlla serale ñun nga teral ci li la yàlla man loo muy ay way Pape yàlla na barkeel ay way nag loo ci am mérité parce que way dàq laa way ci réew mi du fi yeewoo de xanaa ci beneen réew kon maa ngi lay ñaanal sa yii